Famara Sané maa ngi lay nuyu. ah lay nuyu maa ngi euh, les auditeurs de de Rewmi voilà Famara hmm. Sané nga nekk analyste politique déjà ñu wax ci tournée wu président de la République Macky actuellement au niveau euh, de certaines régions naka nga gisee tournée bile. waaw tournée bi moom c'est c'est c'est normal euh, euh, parce que moom euh, président de la république def na ñaar mandaam dafa war a dem donc bala muy dem il faut mu def tour mooy Euh, dernier tour bi euh, mu dem mu xool lu muy liggéey euh, fan la réussir fan la am limite lan la ci ban correction la mun a apporter pour son candidat parce que moom engagé na pour soutenir la candidature de quelqu'un donc bala muy dem il mu bàyyi ko dara boo xam ne moom tam à partir de là mun na jël en compte pour mu continuer et moom Macky Sall ça lui permettrait mu am benn document boo xam ne a euh, tout moment bu ko laajee yow la yow bi nga nekkoon ci président de la république lan nga lan nga def euh, lan nga mënul def lu tax mënoo def lii mu mën a répondre loolu le plus vite possible. Hmm. kon euh, jàpp nga ni tournée bi daal lu normal pourtant nag am na ñu ne fi too toll nii le président est déjà en campagne pour son candidat Amadou Ba est-ce que aussi mën nañ ko jàppe campagne électorale pré-campagne en fait. waaw mun nañ ko jàppee pré campagne la mun nañ ko jàppee campagne électorale la pour pour son candidat parce que moom comme moom engagé na pour un candidat bu doon président benn euh, un président sortant bu ko nga xam ne euh, soutenir benn candidat donc là dañuy wax loolu mais comme am genn engagement wax na ko plusieurs fois moom Amadou Ba la soutenir donc ñuy wax euh, opposition bi wax moom mu ngi ci campagne bi opposition boobu elle a am na am na droit di wax loolu parce que euh, euh, boo defee loolu di mobiliser les foules di joxe les moyens donc c'est avec euh, son candidat après Amadou Ba qui est toujours le premier ministre également donc loolu moo tax ñoom tam ñu wax ba tournée campagne la quoi. Mm-hmm. ñu wax ci candidature Amadou Ba candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar yenn observateurs yi jàpp nañ ne premier adversaire Amadou moom mooy alliance. alliance pour la parce que gis nga sorti ñoom Souleymane Jules Diop ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi si biir APR naka nga jàngatee loolu. waaw ah, ñoom ñoom tam euh, vraiment ils ont raison ah, wax nañu dëgg à leur niveau selon le seen entendement. parce que pourquoi ñu wax loolu euh, parce que boo xoolee Amadou Ba euh, équipe ci ci gouvernance am ci coach am ak depuis ni ñu nommé ko euh, candidat ñu jël ko ñu choisir ko comme candidat de de de Benno donc gis nañu moomu impliqué wul les beaucoup de lieutenants de la paire donc euh, responsable yu ñu ngi fii da leen bàyyi de côté ou bien ñooñu sont pas laissés de côté mais xamuñu affaire bi nu mu déroulé donc nu mu déroulé sa carte sa campagne euh, parce que campagne am ak euh, am gouvernement dafa daf ko daf ko bo presque dafa daf ko jaxasoo donc daf ko boole ko donc doo xam mu ngi campagne doo xam mu ngi que yeneen sax dañ dañu ne dañu ngi ci tournée économique mais ci tournée économique c'est teinté de campagne politique loolu moo tax ñoom il ne se voit pas dans tout politiquement ce qui se fait au Sénégal euh, quand un candidat est là tous les responsables politiques sont impliqués ils sont euh, dans dans la mobilisation ils sont dans la mobilisation bay mais gis nañu euh, avec Amadou Ba ñeneen ñi ñoo fa nekk ay groupe ñoo fa nekk équipe boo xam ne moom moom moom la mobiliser moom ñoo équipe boobu moo liggéey autour de lui donc les autres euh, ils se pensent ils sont désemparés donc dañ euh, xam ne ñun lan la ñuy def quoi. donc Amadou Ba kon moom naka la mën a def pour génn si parce que bu fekkente ni dañu la def candidat euh, ñu nekk si biir parti bi di la ŋàññ peut-être di la xeex naka la si mën a génne ba remporter entre guillemets les élections. mais c'est loolu loolu c'est facile pour moom parce que ñoom dem nañu élection yu bëri gis nañu élection bu nekk nag qu'est-ce qui naka la ñu def pour ñu remporter élection boobu léegi nag la l'une des actions lu mu war a def loolu moom mooy euh, impliquer d'abord tous les responsables au niveau local au niveau départemental et au niveau régional et euh, au niveau national dafa war a woo ñoom ñëpp ñu impliqué la mu ne leen ah, affaire bi man la léegi nag ah, euh, faites-moi des propositions mais pour ñu mën a liggéey pour que ñë ku nekk euh, ñu sentir le moom bokk na ci équipe bi mais tant que deful loolu ah, mu bàyyi ñeneen yi mu yaakaar ne am na groupe boo xam ne moom mun naa ko mun naa coacher affaire bi dinañ di problème parce que bu savez dans un parti politique les luttes ce sont des luttes de positionnement pour la finalité qualité pour que suba bu amee eh, victoire bi ku nekk nga mun a am place bu baax donc tendance bi les gens ont parfois eh, am nañu égoïsme boo xam ne eh, dañuy écarter ñeneen ñi sans tenir compte que ce dernier ku ñu écarter nii il peut apporter quelque chose pour le parti. Euh, euh, Famara aussi ñu gis njiitu euh, réew mi wax na si li nga xam moom mooy immigration irrégulière nee na daañu amal ab conseil présidentiel sur l' immigration irrégulière naka nga gisee déclaration boobu. oui conseil présidentiel sur l'immigration boobu Macky Sall war na ko def euh, en tant que président de la république euh, action booy gis euh, mo tardewul heure bi ñëw baax na mais pour moom Sall tardé na ci bu pour régler le problème là parce que immigration daa mel ni quelque chose qui a gangréné vraiment la jeunesse sénégalaise gis nañu ñu bëri ils ont perdu leur vie ci ci ci immigration clandestine bi donc moom bi mu 2012 2012 def na ko campagne wax na plusieurs fois wax na ay mais bu mu nekk pouvoir bi théorie, quelque chose boo xam ne mun na remédier immigration quelque chose de concret boo xam ne mun parce que euh, pour apporter les quelque chose de concret mooy da ngay trouver les solutions au plan local pour retenir les jeunes et trouver des solutions au plan euh, euh, des solutions pour que ñi dem réussir ñu ñu ñëw bu ñu ñëwee tam ñu qu'ils quelque chose au niveau local donc def loolu yëpp chaque année ce sont les mêmes choses les mêmes initiatives à la longue la chose est devenue vraiment critique parce que xale yi gis nañu ah amuñu solution amuñu perspective euh, donc pour eux ah, ma dee ou bien ma dem ma réussir mais dinaa dem euh, dara dara ma tere fii c'est pas parce que am na danger euh, mën naa béy donc loolu mun ma teree parce que soo ma toogee ni situation bi may yëkkir fii presque da mel ni situation boo xam ne quelqu'un koo xam ne dafa dee carrément parce que amul liggéey liggéey amoo defoo dara euh, sa parents yi jaan dañuy am problème mënoo régler donc euh, c'est Macky c'est dommage pour lui je sais que euh, mais action boo nekk ni ma waxee rek action moom heure bu muy ñëw rek baax na comme que dañ ko négligé woon mais léegi jël nañu initiative peut-être que si au cas où leur président leur candidat remporterait les élections il va essayer de remédier à la situation. Hmm. Famara aussi affaire Ousmane Sonko ñu koy xaar si. 17 novembre bile si jamais Ousmane Sonko euh, gagne au niveau de la Cour suprême politiquement lan mooy nekk suite bi ah politiquement il y aura xam ne impact positif comme négatif impact positif mooy euh, c'est c'est euh, de vitalité pour le le le le, euh, le parti de PASTEF de de sur la scène politique et également leurs candidats pourraient participer à à l'élection présidentielle maintenant au plan euh, sur l'autre plan on peut assister à ce que parce que euh, Macky Sall le pouvoir euh, euh, le pouvoir de Macky Sall a mis euh, Sonko dans une situation juridique comme li ñu defoon Karim en en deux mille dix neuf donc processus boobu juridique boobu pour nga a corriger ko de ça prend du temps donc ceci veut dire que ça pourrait aboutir à un report des élections présidentielles. ñu wax ci beneen ponk Famara Sané di silence bi ñu nemmeeku parti politique bi di Rewmi Idrissa Seck daal Euh, daf ne tekk tekkaaral si jamono ji nga xam ne way politique yëpp ñu ngi manifesté wu di wax parce que euh, daanaka ñaari weer ak genn wàll moo des si élection présidentielle bi. oui Idrissa Seck euh, son silence mun na mun nañu am ñaar raison beneen bi mooy peut-être que. Idrissa Seck il est un peu dessus euh, euh, li ñu ko li ñu ko jigoon euh, avec tout ce que toutes toutes toutes les promesses que le pouvoir libéral le pouvoir de Macky Sall lui a fait et donc gis nañu ne que peut-être que il a que peut-être selon certains entendements moom moo waroon nekk vraiment le candidat de Benno nekkul le candidat de Benno il n'a pas ce soutien de taille du président président de la République donc déception boobu moo ko marqué un peu désemparé avec le départ de certains de ses beaucoup de ses lieutenants qui ont rejoint d'autres partis particulièrement le parti de de Macky donc boobu mën na nekk une justification beneen justification mën na nekk le fait que loolu mën na nekk stratégie politique c'est que il continue toujours euh, day bénéficier le soutien de Macky et ce soutien se fera à travers peut-être Euh, à la veille, le lendemain, la veille du deuxième tour, euh, donc le candidat qui serait euh, qui qui serait admis à aller au deuxième tour ñoom parti benn yëpp dañ koy supporter donc lui il doit travailler pour pouvoir parfaire son parti et également se positionner pour être parmi les deux candidats qui vont aller au deuxième tour et là il pourrait bénéficier du soutien de de Benno peut-être ce qui expliquerait peut-être sa victoire l'éventuelle victoire hmm. si wolof rek xam naa français yu bari na dernière question. Famara euh, Sané di retour Karim Meïssa Wade fi ñu toll nii sénégalais ñu ngi koy xaar euh, li si des bareetul est-ce que bu ñëwee sax du trop tard. non mënul nekk trop parce que Karim ni mu demee ci situation juridique moo ko yóbboon affaire tribunal. Hmm? moo ko yóbboon donc bu si si war a ñëw euh, affaire boobu gouvernement boo xam ne moo jël décision emprisonné ko six mois euh, euh, trois mois six mois mu exilé ko sept ans gouvernement boobu ak moo war a jël ay initiative comme processus nu mu nu ko jëlee pour dugal voter ay loi pour le permettre à retrouver ses droits civiques donc le retour également ne pensez pas que euh, ne, ne dites pas souvent que c'est Karim Wade Karim Wade seulement je pense que le gouvernement également est impliqué dans ce retour et donc euh, je pense euh, que muy tardé mm. aujourd'hui Sénégalais yëpp ku nekk boo boo jógee rek da nga ne Karim Wade kan lay ñëw Karim Wade kan lay ñëw ah loolu tam à participer na di ko di crédibiliser sa candidature mën na ci gagner daal waaw bon loolu day day crédibiliser sa candidature parce que ku nekk euh, bu signé le jour qu'il va venir ñoom ku nekk da ngay Karim la ñëw na lan la bu lan la mën a wax pour sénégalais yi lan lay proposer pour sénégalais ku ñëpp ñëpp dañuy dem ah ñu ne waaw waaw lii moom ah war nañu dem parce que gis nañu bu temps bu mu nekkoon fii liggéey na lii def na lii def na lii def na lii donc mën na nekk candidat crédible comparé aux autres candidats si on dit lui au moins il a eu voilà merci beaucoup Famara euh, Sané ñu ngi lay remercier bu baax a baax. merci beaucoup merci. si <laughs> <laughs> wolof yi joolaay. <laughs> Famara. Euh, voilà ñuy fàttali ni analyse politique nga mais ñu ngi lay remercier bu baax a baax. ci disponibilité bi vraiment.